gannaaw bi ñu dàqee seen combat bi waroon na am le 31 juillet bi ñu génn ndax coronavirus bi diggante bombax ji ak Balla gay numéro 2 waaye dafa mel ni kii ñaar ñooñu ku ci nekk am na beneen yoon boo xamante ni ma ngi fay jaar ci ay xibaar yi ñu jot ki nga xam ne moom mooy le lion de Guédiawaye di Balla Gaye numéro 2 fii fukki fan wala fukki fan ak juróom maanaam 15 jours dana delluwaat INSEP. fële ca France préparé waat combat diggante moom ak Bombardier ak yeneen combat ya mu am mu mel ni kii ci kàddu Mamadou Ali Ndiaye ci benn émission te mu nekk coach principalu Balla Gaye numéro 2 foofu ca INSEP moom mi ngi fësal ne moom gay ndepp géejawaay gi mi ngi waaj fii fukki fan wala 15 jours place rek la ñuy wut mu daal di am vol delluwaat fële ca INSEP préparé waat combat bi sérieusement mel ni ki combat boobu jox nañ ko àqam ba mu mat sëkk waaye tamit ci xibaar yooyu nga xam mu du Ali Ndiaye euh, wax na ko nee na kii di Balla gay pare na woon bu yàgg pour jàmbaarloo ak kii di Bombardier waaye yokk cere dolli ñeex du ñàkk ndax caay xibaar yi ñu am tamit boo moytuwul combat bi promoteur bi di Gaston Mbengue boo moytu danañ ko tëgg mois d' octobre bii ñuy dëgmal wala mois de novembre en tout cas daal ci ñaari weer yooyu du ci génn maanaam combat bi du génn ci at bi kon boog octobre wala novembre Balla Gaye Bombardier danañu sëgg bëre foofu ca arène nationale kon Balla Gaye mi ngi waaj fii ak fukki fan wala fukki fan ak juróom delluwaat fële ca France waaye adversaire am euh, di Bombardier le double roi des arènes moom itamit mi ngi waaj beneen combat muy MMA gannaaw combat bi mu waroon a am troisième combat bi ak polonais bi début d'année bii ñu génn te ñu dàq ko monté moom bombardier mi ngi waaj fi mu nekk nii ci la nekk war a dajeek doomu français bi di Jérôme Le Banner combat bi ñu ngi koy amal fële ci réew France vingt cinq septembre bi ñuy dëgmal 2021 muy combat boo xam ni troisième bi la gannaaw ñaari ndam yi nga xamante ni am na ko di ñaan bi yoon mu nekk beneen ndam ndaxte Sénégal lay taxawal kon Jérôme Le Barnier nekk adversaire bombardier le 25 septembre bi ñuy dëgmal kon nekk na champion kickboxing euh, te it mu nekk koo xam ni adversaire bu coriace la kon mi ngi noonu ñoom ñaar yëpp ku ci nekk am na beneen yoon ba muy jaar kii ma ngay dem ci troisième combat MMA le 25 septembre incha allah muy bombardier le double roi des arènes Balla Gaye di waaj dell fële ca INSEP daasaat lii di paakaam nammat mbir yi waajalaat yokk cere dool li ñeex ndax combat boo moytul octobre wala novembre danañ sëgg bëree.